الحمد لله الذي بعث إلينا خير البريات وختم به الرسالات ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن الله يحب المتقين أيها المؤمنون يبارك لكم مستحل عام هجري جديد نسأل الله تعالى أن يجعله عاما مطعما بالنعم والخيرات مكللا بالنجاحات والإنجازات لنا ولوطننا ولقيادتنا الدينية والأموية وأن يعم العالم بالسلام والأمان والاستقرار والاستثنان وفي هذه المناسبة الكريمة نقف وإياكم أمام صفحة ناصعة من صفحات سيرة نبينا العطرة صلى الله عليه وسلم صفحة هجرته عليه الصلاة والسلام التي كانت رحلة لترسيخ الإيمان وتعزيز القيم وتوقية الاستقرار ونشر السلام وبناء وبناء الوطن نعم لقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم في هذه الذكرى مسيرة بناء للقيم الإنسانية الراقية فأطلق صلى الله عليه وسلم قول رسوله أربع قيم سامية وجعل أول أول لبناتها السلام فقال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام فدخلوا الجنة بسلام bokki jullit yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala moom bi nga xam ni moo yónni ci ñun ngën ji mi nekk waaye tëjee ci moom yónnanteem bi di seede ni amul benn buur bu yelloo jaamu bu dul moom subhanahu wa taala moom dong bokkaale ñeelu ko waaye di seede ni suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamam la di ndawam ñaan yàlla mu dotte ci moom xéewal ak mucc ak barke waaye def ko ci njabootam bu làpp ak àndandoo yu baax ya ak képp ku jaar ci seen seeni tànk ba tëri ci penc yàlla ci yàlla boole mbokki jullit yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla nee na moom borom subhanahu wa taala day bëgg way ragal yi ñu ko ragal subhanahu wa taala leen di bëgg yàlla yàlla boole suñu ko ragal mbokki jullit yi ñu leen di ndokkeel njëkk ci at mu bees bi nga xam ne ci lañu ndab bi muy atum gàddaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci atum jullit ñi nga xam ni ñu ngi koy tënk ci gàddaay yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn dala ba yonent saa sallam gàddaayee jóge Màkk ñëw Madina ak léegi di xew-xew boo xamante ni xew-xew bu rëy la ci lislaam gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax tey ñu bëggoon taxaw tirer benn leçon def jàngat taxaw seetlu ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam googee nga xam ni mooy ndorteel atum jullit bi ci lañ koy dëgg ni nga xamante ni yonent saa sallam dundam jëpp dafa fees dell ak ay bind dafa fees dell ak ay njàngat yoo xam ni jullit ñi dañ ci mën a jariñu ndax looloo taxoon suñu borom subhanahu wa taala yónni ko ci xeet bi te mooy ngir mu nekk suñu royukaay ndax alquran ji yàlla wàcc ci moom moom moo ko jàngale ci aw làmbañam jàngale ko ci ak dundam lépp bi alxuraan bi ko dund wan ñu ndigal yi niñ ko niñ ko wat niñ koy jëfee tere yi niñ koy mayoo dundam di jàngale loolu moo tax dundam sallallahu alayhi wa sallam jullit ci da ko war a jàng ngir xam ni muy jëfandikoo li yàlla bëgg ci moom muy kii mbokk jullit yi bokk na ci njàngat bi ñu bëgg a jàngat tey ci gàddaay yonent saa sallam taxaw seetlu bi ñu bëgg a def mooy gàddaay boobu hasard taxul mu def ko waaye nag koo def ci ndigalu borom bi subhanahu wa taala ngir renforcer ngëm yàlla subhanahu wa taala waaye ngir dëgëral valeur yi nga xam moom la islam bëgg samp ci pénc mi waaye ngir tasaare jàmm ak stabilité ci société bi loolu lay taxoon sallallahu alayhi wa sallam gàddaay woon Makka ñëw Madina boo tax bi mu ñëwee Madina ci li ñu Abdullah ibn Salaam nekk li nekkoon kenn ci fóore yi yahud yi dëkkoon Madina ci seeni borom xam-xam yi nee na bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee Madina nit ñi dañoo buur wuti ko buur mooy ñëpp waaxu wuti ko nee na may dem ma dem di xool yahud la woon ci jeneen dil la bokkoon nekk bi ci borom xam-xam nee na waaye bi ma ñëwee ba ne jàkk kanam gi damaa gis damaa jàngat ci kanam gi ni kanam gii du kanam kuy wax lu dëgg lu du jàpp kanam kanam gi rek li ma njëkk a jox li ma njëkk a jàng ci xa kanamam mooy kanam gii du kanam kuy wax lu dul dëgg waaye nee na li ma njëkk a xore ci làmmañam li ma njëkk a wax ma dégg moom lañ bëgg a taxaw def moom lañ bëgg a def taxaw seetlu tey mun li ma njëkk a wax dégg mu wax ko ba may door dugg Madina door yegg si Madina mooy afsus ayuha nnaas afsus salaam wa at'imu taam wa kilul arham wa sallu wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam kàddu yu tënk yi la wax nee na moom laa njëkk a dégg mu wax kàddu yooyu mbokk yi buñ defee buñ defee taxaw seetlu ci kàddu yi mooy kàddu buy defar am pénc mooy kàddu buy defar am société ndax moom njëkk a wax mooy ay yéen nit ñi ak suuf salaam tasaare leen jàmm seen biir tasaare leen jàmm ci seen biir seeni wax seeni jëf seeni jëflante na ko jàmm lal na ko jàmm lal ndax jàmm mooy tax am penc jëm kanam am penc lépp lépp lu ñuy tal daa fekk jàmm am bu jàmm amul kenn dootul tal leneen lu dul jàmm moo tax mu jiital ni ab suuf salaam moo tax jàmm jooju ngir yàlla di ko sabbilit bi saa su nekk moo tax boo demee ci julli da nga fekk da nga koy fekk jàmm jàmm jooju booy taayee yaa ngi wax assalaamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin yàlla jàmm nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla jàmm nekk ci ñun ak ci jaami yàlla yu sell yëpp yàlla jàmm nekk ci ñun jàmm jooju ngay ñaanal nit ñi boo amee dégg te am tuuti xel da ngay xam ne jàmm jooju yow dañ laa wax dafa nekk mission ci yow nga fay saar ci ci pénc bi nga nekk jàmm yàlla ñi ngay ñaanal jàmm mooy yow bu dul jàmm war di jóge ci yow jëm ci jàmm yàlla yooyu moo xam wax la moo xam jëf la jàmm joojee borom bi subhanahu wa taala sant ñu fu mu daje en tant que ay jullit fu ñaar jullit daje seen kaddu gi njëkk génn ci ñoom na nekk ñaanal ñaanalante jàmm ñaalalante jàmm mooy nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak yërmandeem ak barkeem mu delloo la ñaan gi wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ma salaam salaam ni bu ngeen rombante kii war kii dox bu rombee kii toog na ko nuyu kii war waruwaay bu rombee kii dox na ko nuyu daal di nuyul nuyul koo xam ak koo xamul foo foo romb nuyu ko mooy ñaanal ko jàmm bu fekkente ni yow ñu ngi lay bàyyi loo xam ni boo tollu deel ñaanal ñi ngay gis ak ñi ngay taseel jàmm nit ki bala ngeen di jëflante wala ngeen di séq dara di ngeen ko gisee mu ni bu ngeen gisee kàddu gi njëkk a jëm ci yéen na nekk ab nuyoo mooy ñaanalante jàmm kon loolu bu lalee gisee gi rek mooy gis la nga gisee xaar ci ginnaaw gi ci ay jëf ak jëflante lépp mën naa jur jàmm bu fekkee ci ni xam nañu dañu suñu borom sant ci suñu diggante moo tax mu ne dee leen dee leen nuyoo même nee na ki dugg ci ci kër wala ci néeg wala fu ma doon fekk fa ay nit na nuyoo bu ñuy tàqanikoo itam nuyoo boobu yonent bi saa sallam nee na nuyoo bu njëkk bi ngay nuyoo boo yegsee gën te yay nuyoo bi ngay nuyoo booy tàggoo kon booy tàggoo itam nee na na ngay mujj ba xam say mbokk ne nekk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh du ko robaar na leen waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah mooy nuyoo mooy gise gi mooy ubbi gise gi mooy tëj gise gi mooy tàggoo yu saa sallam ba nga ba nga nuyoo nuyoo bi ngay nuyoo boo boo yegsee gën te yay nuyoo bi ngay nuyoo booy def kon ñaar yi ñoo yem kon tasaaro tasaare bi ñu bëgg ñu def ñu koy tasaare jàmm suñu biir moo tax bu ñu daje nañu nuyoo bu ñuy tàqandikoo nañu nuyoo nuyoo mooy ñaanalal ci jàmm te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyoo mooy dindi ak noonoo ci suñu biir doomu aadama yi bu ñu dund moo xam ci kër moo xam ci ci quartier moo xam ci liggéeyukaay bu ñuy daje il faut seetaane léeg-léeg muy juwee la seen diggante ci ay kàddu wala ay gisit waaye li fii ak nuyoo gi am mooy jàmm am na ay gis ni saa su fa jàmm amul rek nuyoo mooy njëkk a dagg moo tax sallallahu alayhi wa sallam di wax ni même loolu bu amee ci diggante yi ci gën ci yéen gën gënal yàlla mooy ki njëkk nuyu morom daa di wax it bu ngeen toogantee lu ma ñetti fan de nuyoowu leen ngeen moom ngeen ngeen ci xeet kon ñaanalante jàmm jooju kon jàmm jooju yoon saa sallam njëkk ñu ko ci kàttan ci mënee tu mën a war a comme parce que ne samp état mooy tasaare leen jàmm ci penc bi bu njëkk mooy loolu teg ci wax ak imu taam dee leen lele ñam dee leen lele ñam dee leen joxe ñam doomu aadama alal ji ko yàlla dénk lu ci ëpp soxlaam rek wàllu jëlee da caa nekk looloo tax borom subhanahu wa taala di jox ñii lu ëpp seen soxla di xañ di jox ñii lu matul seen soxla ba noppi sant ñi mu jox lu ëpp seen soxla ni leen jël leen ci li ëpp seen soxla jox ñii ma jox lu mënul seen soxla ngir lan ngir créer benn stabilité sociale maanaam benn ràmbaloo ak tàkkoo ak dimbalante ci penc mi ndax loolu daa am lu muy juraat mooy jur mooy jur tàkkoo moo mu jur bëggante te su bëggante amee rek bu nekk di nga mën a def sacrifice ngir sa njëriñu morom moo tax muy jëlee leneen ñam te li gën ci li nga joxe nag mooy leneen ñam moo tax borom bi subhanahu wa taala mi ñu tàgg waa àjjana ñu bokk na ci lii melokaan yi tax ñu bokk ci waa àjjana tey mooy wa yut'imuuna at-ta'aama ala hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira dañ daan lele ñam dañ daan leel ñam miskiin néew ci doole yi dañ daan jox ñam néew ci doole yi ak jirim yi ak itam doxandéem yi wala ñi nga xam ne caab dëgg fete ginnaaw kon leele ñam dafa bokk ci li yàlla sopp lool ci jullit bi ngir lan ngir li mën a jur ci penc bi digganteem ay morom ak bëggante gi lay jur ci suñu diggante ndax képp koo xam ne yaa ngi jël sa alal di ko def ci sa morom alal dafa sax ci xol loo jël ci sa alal jox ko sa morom rek mooy jël nga ci xolam jël nga sa jëmu def ci xolam boo jox sa alal rek mooy jël nga sa jëmu yow def ci def ci def ci xolam te loolu la yàlla borom saa dara bëgg ci yoon moo tax muy jox ñii lu ëpp seen soxla jox ñii lu ma dul seen soxla ni ñeen jox leen ci ñi ma xaj ngir lan ngir ngir mën a jariñante ci ci ci pénc te ba noppi garanti waat borom santaan yi li ma leen sant ngeen joxe ko ku ko joxe man garanti naa ne dinaa la dinaa la naa ko dinaa la ko remplacer lu gën lool wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raasiqiin ci borom mu ne lu ngeen joxe ci seen alal rek te joxe ko ngeen man yàlla ngir naa ko santaane tax ngeen joxe ko yàlla mu ne dinaa leen wuutal dinaa leen remplacer lu gën li ngeen joxe te man yàlla maay gën ci gën ci ñiy wërsëgal wërsëg yëpp ci loo xam ne nekk inna allah huwa razaqu dul quwwati matin mooy wërsëlaa kon wërsëla wërsëla kii kii wërsëlaate kii wërsëgalaate moo moo moo garanti ni boo joxee ngir sama santaane la ma jox la lu gën li nga joxe ñetteel bi mu dénkaane mooy wasilul arham dee leen di jokk ak mbokk dee leen di jokk ak mbokk ak ak ak roxam mbokk gi muy wax bi mooy mbokk deret mbokk mbokk deret ki nga xamante ni dañoo leen boole wala meen boole leen ah ngeen bokk ci wàllu ndey wala ngeen bokk ci wàllu yaay moo xam ci ngëneel la mu mu jur wala ñu jur ko pour fan a doon ci famille bi nee na da ngeen di rappeler famille na famille yi nekk benn di leen jokk famille di leen jokk mbokk bi ak mbokk dañ koy jokk ngir mën a jariñante ngir mën a mën a mën a mën a dëgëralante te famille yi bu ñu dëgëree ñoom ñooy ñoom ñooy former quartier yi quartier bu ci nekk bi ay kër la kër bu nekk famille nekk ci biir famille yi bu ñu nekkee benn mbokk bi jàppalante dëgër dëgëralante quartier bi day mujj nekk day nekk benn kon di leen jokk seenu mbokk moo tax saa su ñuy takk ab sëy nga xam ne ci la ak mbokk di juddoo suñu borom day day day day mbokk na ci yenn saa su ne xutba maanaam xutba buy faj sëy mooy wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham na ngeen ragal yàlla mi nga xam ni tey sëy bii ngeen laajante ñuy joxe ka nangu ci ci ci turam ngeen koy laajee joxe ka nangu waaye di ngeen ragal itam bàyyi xel moytu baax a baax mbokk bi ngeen moytu mbokk bi loolu borom subhanahu wa taala wax kon jokk mbokk lu ama am solo la jokk mbokk nag dañ koy dox dañ koy wax wala fii dañuy wax ne lii jokk mbokk dara saxu ci karaw muy loxo bi làmmañ wi ak ndëggul yi ñooy jokk mbokk mooy da ngay dox dox ak joxe ak waxu rafet lii mooy jokk ak ak mbokk waaye ñeenteel bi mu dénkaane mbokk yi ci liy defar penc mi mooy wasollu wa naasuñu yàlla ñett yi ñu di ko wax yëpp seen diggante ak penc mi la ñett yi ñu di ko wax yëpp seen diggante ak penc mi la tasaare leen jàmm lele leen ñam jokkale ak mbokk seen diggante ak penc mi la mu teg ci nag fondement bi ko war a taay mooy wasollu wa naasuñu yàlla te seen diggante seen borom nay jokkaloo ngir yu njëkk yi mën a yomb li mu la sant ci penc mi sa diggante say morom bu sa diggante sa borom taggee doo mën a jokkale sa diggante say morom laa takunu yaa alladina amanu laa takunu kalladina xaanu allaha wa rasulahu laa taxunu allaha wa rasulahu wa taxunu amanatikum laa taxunu allaha wa rasulahu wa taxuunu amaanaatikum wa antum taalamuun su borom mu ne bu leen wor yàlla ak yonentam bu leen dagg seen digganteeg yàlla ak yonentam su ko defee ngeen dagg seen digganteeg seen seen i mbokk ku jokkul diggante ak boromam mën ta jokk diggante ak ay mbokk ku wor yàlla ak yonentam mënoo ñàkk a wor say moroom yi doomu aadama kon li nga xamante ni mooy laltaay ji ni fondement bi mooy seen diggante seen borom nag nag bu mu dagg da ngeen di jokkoo la mooy lan dee leen julli guddi. wa sallu dee leen julli wa naasu ni yaa fekk ni ñaa ngi nelaw bu ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ci bi ko yàlla naree yen yen bu rëy bii te mooy wàcc ci moom alquran di war a gindi àdduna bi yëpp ba ko yàlla fas yéene def da koo déey téy boo xam mooy woyofal yéen bopp mooy leen yaa ayyuhal mudammil qumil layla illa qalila e yow yonent bii nga xam ne alquran jii ma wàcc ci yow ñu fas yéene la ko fas yéene la ko sas muy mission bu rëy te ba mu njëkkee di xës ci kawam dafa jaaxle mel ni ku jom tiit dem tëdd di sàngu su borom ni ko yow mi sàngu jubal sàngu du solution bi sàngu du solution bi ndax yow da ngaa war a gindi waa àdduna te loolu mooy mission doomu aadama doomu aadama bëgg lu yomb bu bàyyi ko ci kaw suuf doomu aadama maanaam noof laay bàyyi ko ci kaw suuf di ko bàyyi ci kaw suuf mooy moom la yàlla def kilifa ci kaw suuf moo war a tabax kaw suuf penc mi nit ñoo koy tabax moo tax suñu borom ni ko solution bi mu tëdd sànq comme jugal jugal guddi gi nga taxaw julli kum lay la jugal taxaw julli gi guddi gi julli waaw guddi gi yëpp illa xalila bu des tuuti bu mënta ñàkk nes fahu nga taxaw mu genn wàllu guddi gi awi xusnu xalilan wala nga wàññi tuuti aw sit wala nga yokk si waaye julli guddi moom mënatu la ñàkk ndax li nga fas yéene yow julli guddi mënatu la ñàkk ndax li nga fas yéene yow kon loolee moom farata la woon ci moom waaye loolu leçon la ci ñun nii képp koo xam ne responsabilité bi la yàlla bi la yàlla yenn muy njaboot muy liggéey ba ngay liggéey ba ngay liggéey lépp lu la yàlla responsabilité boo bëggee am ndam ca loola ndam lu dul fay faaw faaw ngay jox ko sa borom ko dimbali koo fan guddi dinañ dimbali koo seen borom ci responsabilité yi fan guddi te mooy jël jur di guddi di déyante ak sa borom fekk nit ñaa ngi nelaw nga jug dagg say nelaw jàpp julli tàllal say loxo sa borom déyante ak moom mi ngi lay dégg te xam na ni ñor nga ko moo tax nga jug waxtu wi moo tax kenn taxaw taxawaay bu mel nii yàlla di seetaan si ses responsabilités di dina saay kon mbokk jullit yi lii ay ay bind la ay tomb la yu ama am solo ci jullit bi mu koy jàngat ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne yàlla yem na la te yàlla ñëpp la yem doomu aadama bu ko yàlla bindee wàcc ko kaw suuf def ko xalifatullahi fil ard ci la noflaayam jeex bëgg noflaay day tax a tardé doomu aadama day tax penc mi tardé surtout ndaw ñi nañu laxasaayu ñime coono bu ñu xëyee nekk ci lii leen di jariñ lii jariñ seen leen wër penc mi lii jariñ penc mi nañu xëy di ca nekk guddeeg bëccëg day fexe yeesu yon saa salam santaane kër gu nekk dañ koy fexe mu des fa siiwal jàmm lala ñam jox mbokk loolu ci biir famille yi nañ ko ci tasaare tasaare ko ci quartier yi tasaare ko ci penc mi buñ ko defee réew mi day jëm ci kanam kon mbokk jullit yi ay jàngal la yoo xam ni dañ ko doon jàngal ci gàddaay yon saa salam te moom ñëwee bokk na tab yi dëkk loo xam penc mi mooy ñeenti nekkaan yi am solo yi ay jikko yaa yoo xam ne ku ci kawoo rek di nga réussir sa mission ci kaw fi yàlla ko yàlla yombal aqul ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين seydina muhammad ala alihi wa sahbihi ajmain kon mbokk jullit yi gàddaay gaa ngi noonu yeneen saa sam gàddaay woon Madina ak ñu ko gëmoon Makka ñëw Madina Makka lañ gàddaay woon ñëw Madina ñun tey kenn ci ñun moytu la gàddaay Makka di ñëw Madina waaye yeneen saa sam nee na gàddaay dëgg al muhaajiru ak ci gàddaay ji man haajara ma ma naha allah ma naha allahu anhu nee na kii gàddaay mooy kii gàddaay li yàlla tere kon nag mënu doo gàddaayee madina màkk di dem madina waaye tey ga yoonu gàddaay mi sa kanam mi sa loxo nga mën koo jëfandikoo te mooy salaatam ne nag ci gàddaay dëgg mooy ci gàddaay li yàlla tere gàddaay mooy bàyyi mbir dem dama dem mbir li yàlla tere nga bàyyi ko dem ci li la yàlla sant ne loolu mooy gàddaay dëgg kon nga si jullit yi du ñu tëj suñu jeexal suñu waxtaan suñu xutba lu dul dinañu bàyyi loo waat xel suñu bopp bàyyi loo ko waat xel waajur yi bàyyi bàyyi loo waat ko xel njaboot bi te mooy ñi ngi dugg ay vacances ñi ngi dugg ay vacances école yi daara yi tëj na école yi tëj na ñu ngi ci noppalu ci tànn waaye phénomène yi ñuy gis mu tasaaroo yu jar a bàyyi xel la te mooy mu mel ni vacance bu xasee jot moom njaboot gi dañ leen di boyal dañ leen di libéré bàyyi leen dootu am benn contrôle fu ne ñu dugg fa fu ne ñu dem fa fu ne ñu jëm loolu nag responsabilité ci waajur yi ndax yéen saa saa nee na ku nekk ci yéen ab sàmmule te ku nekk ci yéen dinañ ko laaj ëllëg lañ ko doon sàmmloo kullukum raayaay wa kullukum mas'ulun an raayatihi ku nekk ci yéen ab sàmmule te ku nekk ci yéen ëllëg yaa dina ko laaj moom lañ ko doon sàmmloo kilifa yi ay ay sàmm lañ ci njaboot bi ëllëg dinañ rendre compte borom bi ci njaboot bi leen sàmmloo kon bàyyi xel njaboot bu baax a baax ci vacances yi surtout ci ñaar dafa am ñaar yoo xam ne moo yées ci doomu aadama waaye gën a yées ci ndaw dafa am ñaar yoo xam ne moo yées ci doomu aadama waaye gën a yées ci ndaw mooy lan mooy àndandoo bu baaxul ak jot àndandoo bu baaxul ak jot ndaw lu def ci naaw wala def wala def naaw réew mu tardé dafa di aw aw nitam dañoo dañoo dañoo maanaam bari loolu ci ci pénc bi mooy mooy àndandoo yu baaxul ak jot bu bari kon nañ fexe ba xañ njaboot bi jot jot baaxul ci ndaw surtout ndaw toll ci ndaw toll ci digg dooleem toll ci yëngatu toll ci jàng nañ fexe ba vacances yi xëy na waxtu jàng yi mooy wàññi ko rek nañ fexe bu dul ko programme boo xam ne continuer di réviser di ko doon jàngi waaye ñu koy occupé temps ci loo xam lu am njëriñ la bañ koo bàyyi mu am mu am jot bu amee jot bu si yeneen bana bi ci topp mooy àndandoo yu baaxul àndandoo yu baaxul dafay yàq nit ki lu mu baax baax bu dee ña muy àndal baaxuñu léegi mu jël jikko yi leen doon àndal lépp lu muy àndal kon bàyyi xel njaboot yi ci ñi ñi ñi ñi ñuy àndal seen àndandoo yi njaboot yi tam dañuy bàyyi xel ñi ñuy àndal nit bu bëggee baax day ànd ak yu baax baax yomb ko waaye mu ne di am ànd ak yu baaxul loolu bëgg bëgg baax doo baax kon li ngay àndal yooyu kon gën jikko lañu am est ce que ay dem kati jàkka lañ est ce que ay jullikat lañ est ce que ñu ñu am comportement yu baax la même ci seen apparence ci seen physiquement seen melokaan est ce que buñ gërëm la wala déet yooyu yëpp dafa jar di bàyyi xel ci ñi ngay àndal parents yi tam képp koo xam ne tey dugg sa kër seet sa njaboot comportement bi dal sa xel na nga avertir sa njaboot bu dul ak bu dul ku mu war a àndal xam nga ni kii du sa naw yooyu ay responsabilité yoo xam ne surtout ci vacance bi dañ ci war a xaw a mën a sàggan lool te loolu dafay yàq njaboot bari na njaboot boo xam ne da ngay gis ñu tegu ci yoon yi waajur yi bëgg jekki-jekki rek ñu jaar yoon woo xam ne day jaaxal waajur yi fekk xëy na dañu doon raam ñu doon tëg bët muy ñu muy dugg si kon mbokki jullit yi nañ bàyyi xel xale yi ci njaboot bi waaye rawatina rek rawatina portable yi maanaam jumtukaay yu xarala yu bees yi portable yeeg ordinateur yeeg tablette yi internet bi dañ ko bàyyi xel léegi connexion moom foo doon am connexion bi fi yaa ngi fi bu xa bu xaaju guddee ñun la may nañu connexion yi ñu bàyyi njaboot bi jox leen ay portable xale boo xam ne douze ans la am treize ans la am nga jox ko portable bu dugg ci réseaux sociaux yi fu ne lay dugg la muy gis ak la muy déglu mënoo fexe dugg ci xol xol ñaari canal dong la xol xol doomu aadama di bëgg ak di bañ ñaari canal dong li muy bëgg li muy bañ ñaara koy jox li muy dégg ak li muy dégg ak li muy gis xool ñaari canal dong fa dem li muy dégg ak li muy gis loolu nag lay ñuy occupé xarala yu bees yi sa ñaar yooyu la occupé li ngay dégg ak li ngay gis ay son ak ay vidéo yooyu mooy bàyyi xale yi mu dugg ci seen xol yi ñu koy gis ak di ko dégg mu munoo fexe ba du loolu mooy nekk seen xol te ñun ñëpp a xam ne li ci nekk la ca la ca baaxul mu ëpp li ca baax kon dañ bàyyi waat xel bu baax a baax a baax ci xale yi ci way xarala yu bees yal yàlla sàmm ñu sàmm njaboot yi yàlla yàlla may defal ñu at ñu ak njàpp nawet bi ñu dugg yàlla ko yaa def nawet bu ànd ak barke te ak naataange yàlla sàmm njaboot bi ci aar leen ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن نصرته يرحمه الله